mbokk internet yaatal vision dem ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ci la gën a fees ñu daal di koy door fële ca Bignona jëyee jàng xamante ne bi nag nemmeeku nañ ko fa fële ndawi Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xamante ne bi ñu ngay wëyal nag seen ab pèlerinage di wër ci dëkk boobu lay def seen ab caravane takk deree nag ñoo daal di wàcc dogale leen daal di leen nangu seen bagage yi nga xamante ne bi yore woon nañ ko ni ki ay matériel sonorisation loolee lépp nag takk der yi daal di koy tekk loxo daal di geetru nag ba fees dellu ci ñoom takk der yooyu yële loolee nag mu mel ni tëgg ma day waaja rax foofee ñoom it ñi nga xamante ne bii duna féete ca Pastef ca côté Bignona boobale daal di cee am naqar nag xol bu tàng jër loolee nag lañu daal di yëkkati ginnaaw bi nga xamante ne bii jàpp nañ ne bokk jàpp nañ ne xuppaati nag ak ab bunduxatal moo am ci mbir moomee nga xamante ne bii ni ña ngi koy amal foofee ca Bignona ginnaaw bi nga xamante ne bii nag ñoom ñi féete ca ku jege ña ngay daal di wër nag fas yéene pérenne seen waajoo jële di Bassirou Diomaye Faye niki noonu la leen takk derrière nag daal di fekkee foofee daal di nangu nag lenn ca matériel yi nga xamante ne bii yore woon nañ ko le ngir mën a wéyal seen liggéey loolee ñoom ñaawlu nañ ko nag ba fa ñaawlu yam ngir kat li nga xamante ne jàpp nañ ko moo di réew moo xamante ne bii amul luwaa ndax kat bu fekkente ni dañoo samp ay e, mbër kenn ku nekk nag samp sa mbër li nu war a def nag mooy seetaan askan wi ñoom it ñu daal di doxal li nga xamante ne bii bëgg nañ koo doxal muy teg fi kin fi bëgg a teg loolee nag bu fekkente ne bii nag ñoom nee nañ dañ koo bëgg a def ba pare ñu bëgg leen a xoqatal buntu xatal leen nag loolee dafay daal di nekkaat nag beneen biir looloo tax nag ñoom ñuy ñaawlu bi jëf ji nga xamante ne bii jëf nañ ko foofee ca binjoon naa ñoo ñi nga xamante ne bii doon nañ def seen a ñu daal di leen di eh, dàqee foofee nangu bagage yi nga xamante ne bii yore woon nañ ko